que bi ñu seetlu mooy phénomène bu grave ces douze dernières euh, dernières années mhm. moom mooy impôt et domaine ces régies financières yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk li gën am solo ci politique économique bi impôt et domaine léegi c'est gangréné tout le monde est politique politisation bi à outrance bi dafa ñëw ba déplacé wu ci ministère euh, des des de des finances parce que bu njëkk ba euh, politisation euh, structures yi laalul woon ces ces ces ces régies financières. Mais tu, tu il une certaine administration même magistrature ça on a vu des magistra yoo xam ne léegi ils sont ils sont ils sont ils sont maires euh, dans la dans la dans la politique alors que euh, voilà il y a des dispositions réglementaires yu koy yu koy yu koy yu koy tere euh, foofu laa xalaatoon ne sax peut-être que euh, un un président bu ñëwaatee dina réglementer mbir moomu parce que tey impôt domaine si tout le monde est est Euh, nu mu tudd euh, ministère des finances léegi dañ ko dañ ko politiser. mais ça pose problème. oui mais vous posez une question fondamentale soxna si euh, li nga wax ni yaa ngi laal googu dëkk bi dëgg dëgg dëgg mais régie financière yi dama la bëgg a wax ne problème bi ngay poser la politisation parce que effectivement da ngay dem si direction financière yi genn wàll gaa ngi parti majoritaire bi dominé beneen beneen genn wàll gi ñu ngi si parti opposition biy dominé. ñoom ñëpp ñuy jàkkaarloo et même li nga xamul ma xam ko c'est que même dans les promotions internes daf ciy jouer parce que chef kii bu nekk parti bële ay waa partim lay jéem a avancer ñoom bu ñuy discuter entre ñoom dañuy jéem a xëccoo ay postes de direction yoo xam ne bii parti moo ko moom wala bii parti moo ko moom il est évident que c'est une situation catastrophique boo xam ne aussi bien la majorité am na si responsabilité que les partis d'opposition il faut mettre fin à ça il faut mettre fin à ça pas en faisant quoi en commençant par réformer l'école nationale d'administration c'est les corps de des régies financières qui sont à réformer j'ai un projet de réforme très clair et j'ai une déclaration réforme ban genre j'ai une déclaration d'ailleurs que mon porte-parole euh, a faite de quatre ou cinq minutes sur cette dépolitisation là et sur la réforme des corps les corps il faut les refondre pour que au bout de deux promotions on n'aura plus des inspecteurs des impôts des inspecteurs des trésors des inspecteurs de machin on a une façon de ah reformater le corps parce que boo ko defee frontalement ils vont yaakaar ne c'est une attaque frontale contre telle ou telle catégorie il faut le refaire depuis l'école pour que au bout de deux promotions mu disparaître première chose deuxième chose la dépolitisation des fonctions de direction appel d'offres à tous les niveaux dans les régies financières. Et troisièmement, la lutte acharnée contre la corruption. Toute cette histoire-là, c'est une histoire de corruption, madame. C'est pas, ils ne vont pas dans les partis politiques parce qu'ils ont envie d'aller les partis politiques. Ils vont dans les ah, partis voilà. politiques. <laughs> dañuy dem ci parti politique yi parce que dafa am affaire u guerre ak affaire u xaalis bu bari. ministère bi ngay wax ak direction yi ngay wax xaalis ba fa am dafa bari et jub gi nekku fa toujours ci ñëpp moo tax problème la boo xam ne mënoo tey. réformer administration ne da ngay réformer administration ak régie financière yi te engagé woo une lutte conséquente contre corruption ak contre guerre et man sama responsabilité et sama engagement devant sénégalais yi mooy bu ñu ma éliré guerre au bout de un an dina fi jóge ah parce que ah oui absolument je le dis je nga di nga réussir là où là euh, a échoué bien sûr mais bien sûr mais parce que j'ai plus d'outils que Abdou Diouf pour diriger le Sénégal Mais, ah bon mais bien sûr mais j'ai pas la même formation j'ai pas la même trajectoire Abdou Diouf était 25 boo xam ne il il n'avait pas peut-être tous les outils pour les diriger aujourd'hui moi si je suis élu président de la République je changerai première décision le texte le statut des renseignements nationaux mooy les renseignements généraux mooy agence secret yi la première mission que je vais confier aux renseignements généraux c'est la lutte contre la corruption comme au FBI et ce sera ça s'arrêtera et ce pays-là sera intègre et ce pays-là sera propre et on ira vers des sérieux objectifs de développement on luttera contre la pauvreté on luttera contre les inégalités et moi c'est ça mon option parce que j'ai horreur de la misère j'ai horreur de la pauvreté et j'ai horreur de l'injustice euh, Cour des comptes Il y une évaluation. D'abord, un, les cours de compte seront régionalisés. Première nouvelle que je vous donne, parce que tout simplement, je lance une grande initiative qui sera un acte 4 de la décentralisation. yow sénégalais ngay waxal doo doo doo làkk wolof. oui non yow yaa ma français moo tax ma tontu la si français. dafa am loo xam ne dafa am solo mooy que man. Euh, lépp lu ñuy oowee agent de renseignement mooy agent secret yi ñoom laay ji jëkk a dénk xeex contre guerre ak xaalis bi ak ni xaalis yàq dëkk bi ak ni mu yàq état bi loolu ba nga xam ne loolu dina dakk deuxième chose bu ma defee loolu ba pare euh, dafa am loo xam ne euh, dafa am solo mooy que Cour des comptes bi nga tudd benn moo fi am Dakar toog Dakar mais région yi nekk Sénégal yëpp lay def cour de comptes dinaa la wax lu tax région yi nekk Sénégal yëpp lay def commission d'évaluation comme man ñuy saytu ndax politique publique baax na ndax action publique baax na yooyu yëpp day am si région bu nekk pourquoi may def loolu parce que damay lancer li may oowee initiative de régionalisation intégrale du Sénégal mooy région bu nekk Sénégal da ngay am sa autonomie économique di discuter de sa budget di discuter say priorité sa ça suppose que région bi nga xam ne président Macky Sall dindi woon na ko dans l'acte 3 man mi indiwaat ko dans l'acte 4 régionalisation boobu dama bëgg rendre autonome les région ba nga xam ne région yi du ñu mel ni jigéen bu sëy yeewu seen jëkkër war leen jox dépasse daal di leen batale seen goro ndax sa goro xamoo boo nu yoo nu mu lay fayee loolu mooy situation et région yi tey les régions ne contrôlent pas leurs moyens économiques ni leur processus de développement ni la planification de leur développement loolu loolu je non non seulement je fais une régionalisation intégrale et je donne une autonomie économique à toutes les régions du Sénégal et je vais les piloter à partir d'ici et dama la bëggoon na loolu je continue je continue les régions du mais c'est pourquoi les cours de compte mais elles seront régionalisées c'est pourquoi les évaluations elles seront régionalisées et je voudrais dire que cette expérience là euh, Mamadou Dia na ko man essayé naa ko en 98 ma nekk ministre du plan loon ñoom Dabi ñoom Abdourahim Agne ñoom euh, euh, Abdoulaye Chimère paix à son ñoom laa jàkkaarloo faire jàkkaarloo aux fonctionnaires des ministres des finances parce que je voulais à l'époque vraiment faire une régionalisation du développement économique. Et je me suis heurté à leur résistance. Demain, élu président de la République, j'aurai le pouvoir et la capacité de changer tout ça et d'imposer une régionalisation intégrale au Sénégal. ba nga xam ne bu waree am benn route bu jaar Casamance waa Casamance ñoo koy exécuter ñoo koy appliquer ñoo ngi def seen choix de la même façon la régionalisation de la santé je ne me contenterai pas de créer des directions régionales de santé comme le cas actuel je vais créer des agences régionales de santé qui vont faire leur politique régionale de santé qui vont faire leur planification et qui vont contrôler les moyens et pour man il est essentiel initiative régionalisation intégrale du Sénégal c'est non seulement l'acte trop cadre de la décentralisation c'est des budgets qui sont autonomes mais c'est pour permettre aux terroirs de discuter de leur choix de développement et de contrôler les ressources bu boobaa en ce n'est pas en quatre en quatre ans. ce pas une ce qu'on appelle euh, actuellement dans le jargon la territorialisation des des des, des politiques publiques. d'abord territorialisation ça veut rien dire si on ne spécifie pas ce que territoire veut dire. Moi, je dis la région. Donc, je crée un pouvoir politique qui s'appelle la région et qui va avoir un président de conseil régional et qui va avoir un exécutif régional. Donc, ça, c'est de la truie. Mais territorialiser les politiques publiques sans même instance de décision territoriale, ça montre qu'il y a un problème et que ce n'est pas une véritable